mbokk yi salaamaaleykum wax ji mën na ba a gudd euh, defe naa njëlbeen ñuy wax tey bu situation bi demewoon neneen moo fi toog di wax ndax ñëpp xam nañ ni am na lu métti métti métti lu dal suñu kaw ci lu gàtt daanaka ay bés bi weesoogul muy ay dëj ñu am ci suñuy collaborateur muy loo xam ne metti na torop métti na ci Sénégal yépp na nag si ñun ñi nga xam ne ñoo doon xëyandoog ñoom di ñoom di fanaan ak ñoom léeg ci condition yoo xam ne yu jafe-jafe la kon maa ngi ubbee sama kàddu ci jaale Sénégal yépp jaale coalition bi di ñaan suñu collaborateur yooyu suuf sedd set kaw yàlla xaare leen àjjana xool nañ du yàgg balaa ñuy ñëw teew ci lii ndax dëj bu tooy la rongo ñi feragul waaye jàpp nañ ni ñoom ñooñu dem lii woon seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg ci senegal ba fu ma mës a ne ña nga fa fu ma mës a jafe-jafe ña fa ñenn ci ñoom biñ may jàpp ci mois de mars maag ñoom lañu ñu ñu dem nekk brigade de section de recherche pendant cinq jours kon bu dee mbir mi tolloon na leen foofu niñ leen mu ne delloo njukkal mooy du tëju di jooy waaye li taxoon ñuy yëngatu ak li woon seen gëm-gëm ñu fexe ba tey ñu gën a dëgëral taxawaay ba loolu sotti te loolu mooy lii kon defe naa wax ji nit ñi tënk nañ ko ba noppi tey ci suñu recensement président Déthié jotul woon dugg ci détail bi waaye defe naa Matam gore Foundiougne département Golf Sud Tivaouane Peulh Kaffrine département Sam Notaire Saint-Louis département Gandon Mbour ville et département Kédougou commune Pikine ville Sandiara Sabodala Xosanto def naa loolu la ñu recensé su ñu nee Matam nag ñu xam ni commune yu bëri la du benn commune département bi yëpp la daanaka kon loolu lu coalition Yewwi Askan mënul nangu la parce que élection yi dafa am enjeu yu bëri nit ñi dañ naan élection local rek mais weesu na élection locale parce que keroog le 23 janvier 2023 22 suñu si yàlla yóbbu si jàmm incha allah bu ñu toogee ba guddi du ñu lim rek ville yi nga xam ne moom la nit ñi gën a séenu kan moo ko gañe du ñu lim rek kenn ku nekk ñaata commune nga gañe waaye dañuy boole lim ne kenn ku ne ban pourcentage nga am ci vote bi ku ne woon amoon naa 58 pour cent ndax da ngaa des 58 pour cent wala wàcc nga 50 wala yaa ngi 40 kon commune bu ne rek commune bu am importance ci nit amul commune bu ñu xeeb boo gañewul it la fay fortaatu ci ay voix day ñëw ci cagnotte nationale bi bu ñu waree def le décompte moo tax Yewwi Askan Wi. góorgóorlu ba investir fépp xam ngeen investir fépp yombut coalition yi ko mën bëriwul de liggéey bu rëy rëy la ci ay fani fan wala ay weeri weer ay guddi yoo xam ne nelawuñu loolu di liggéey bu ndaw parce que dañu xamoon lan mooy enjeu bi ne waruñoo xeeb benn voix te lii ñuy doxal nii commune boo newul rek zéro voix nga fa am kon fu toll ni Mbour nga xam ne ci électorat yu gën a mag la fii ci senegal ñu ne la mbuur googu zéro voix lañ la fa bëgg defal loolu Yewwi Askan bi mënu koo nangu xalaatuñu ko nangu kon lii ñu ñu bëgg a teg duñ ko nangu liggéey boobu nga xam ne liggéey nañ ko ci ay weer laa wax liggéey ko ay at lu ne ñu jàpp daj ko ba egsi fii duñu nangu ñëw ba tey benn préfet wala benn sous-préfet toog fële ne moom ci loo xam ne teguwul ci fenn mooy xëy rek far loolu est-ce que sous-préfet yi xam nañu le travail bi nit ñi di abaat ba war a mën a andi dossier teg ko seen table est-ce que ñoom xam nañ est-ce que sous-préfet yi xam nga mois j'ai été fonctionnaire je connais la fonction publique mais bokk na ci li ñu war a xoolaat ci formation fonctionnaire bi mooy ñu génne ko ci cadre bureau bu muy tëju mu xam li mu war a gérer li mu war a régir environnement socio-culturel bi ne ci autour yépp parce que préfet wala sous-préfet bu toog bureau xamoo fu nit ñi jaar ba egsi xamoo lu ñu daj nga ñëw ñu jox la ay ndigal ngeen jéggal ma mais ñu mel ni ay dëmm yu jëfuur di toog rek di di di góolu liste yeewi askan wi di xool lan moo ci manqué ban signature moo ci manqué ban xan nga suñu buggoon rafetal mbir mi sax dañu ne am na ñaari liste wala ñetti list benn bokk yaakaar ñu rejeté benn sous-préfet mënu ma ne sur l'étendue du territoire liste benn bokk yaakaar yëpp matoon nañu bi ñuy ñëw sànq wax naa ko sous-préfet Guédiawaye nee naa ko on va te poursuivre personnellement parce que amul droit rejeté te jaarul sax ci commission te lim bañal liste Yewwi Askan Wi mu ngi koy nangul yeneen liste yi parce que liste yëpp a ñëwoon ak dossier yu manqué as tuut mu nangul leen ñoom ñëpp ñu andi seen liste daal di bloqué bi Yewwi Askan Wi te ñu ngi ci délai yi loolu forfaiture la moo tax ñoom dañ leen ñu poursuivre pénalement et à titre individuel Sénégal nag li fi nar a andi fitna mi ngi jóge ci ñaar ba ñetti catégorie chaque jour mu wax ko administration territoriale néewuñu ñëpp de su ba nga gisee ñu génn waaw song na administration waaye préfet sous préfet nga xam ne c'est des ñu ci bëri c'est des démembrements de l'APR su élection jotee ñoom bokk nañ ci liy taal réew mi te catégorie bu nekk nag nañu xam ni réew bu tàkkee ñoom duñ ci mucc organiser élection jafewul nañu impartial tolloo leen ñëpp élection yi jaar yoon mais gérer vos petites carrières personnelles nomination pour quelques milliers de francs de plus promotion boo gis quelque milliers de francs de plus la nga war a sànq réew mi ngir lool loolu dafa war a jeex Sénégal duñ ko nangu ñaareel catégorie bi mooy les forces de défense et de sécurité wala ñi leen di commandé bokk nañ ci ñi a yàq réew mi te ñoom ñoo waroon a garantir sécurité ak stabilité réew gis ngeen li xew barki si ngeen Ziguinchor ba ñu njëkkee attaqué bougé wuñu parce que dañ ñoo bett deuxième round bi mu amee ñu duma leen ba ñoom ñëpp a ngi hôpital waxuma la police waxuma la gendarmerie waaye armée la ñu andi armée yéen ñëpp gis ngeen vidéo benn homme politique di jox ordre les forces de défense et de sécurité loolu gàccee la ci forces de défense sécurité ils sont des complices wala ñi leen di commandé ci liy xew parce que lu am yéeg nañ ko xam nañ ko suñu yaakaaree nag ni waa Benno Bokk Yaakaar dinañ jël le dessus ci l'opposition du ñu bouger fa toog la ñuy toog joxe ay ordre ne gars bu leen bouger waaye bu duma bi méttee ci beneen côté bi rek nga gis léegi armée sax lañuy ñuy génnee armée nationale pour protéger waa Benno Bokk Yaakaar loolu du yoon na jeex ci réew mi kenn ëppalul kenn fii ci réew mi Macky Sall lan la as nit dong la man mandat lañ ko jox mandat bi jeexee mu dem li buggoon bëggoon nag créer une téereur généralisée ba kenn du ñeme loolu ko ci moom ba tey c'est lui qui est le ndax yow soo demee ba sa titre foncier yaa ko woowee noonu yaakaaroo lu dul ci ay jënd ay nit pour saboter ay liste parce que bëggoo compétition am man de am naa ci partiellement yaakaar waaye yàgg naa wax ni justice bii dès qu'un dossier a une coloration politique à quatre-vingt-dix-neuf pour cent bu ci yaakaar dañ leen di jox ordre ñu def la justice sénégalaise ma leen di wax nag cette justice là Barthélémy jaar sera le candidat yeew wi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous dakaar Dakar incha allah kenn mënu koo tere gannaaw yàlla lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal dix ans nga yor dossier di lambar lambari dix ans dix ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé la lendemain nga naan da nga koy convoqué man si j'étais Barthélemy du ma uyu yàgg naa leen ko wax nee naa leen man nee nañ am nañ dossier bind naa def naa lu ne nommé leen euh, euh, euh, un juge defuñu ko bu ma demee ba déposé sama candidature suñ ma wooyu du ma wuyu ci demuma respect des institutions day fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu benn personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu lu mu leen jaral nañu ko jaral je le répète ku mu neex rek nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma ma naan incha allah macha allah defuma ko. soo ma doole rey ma soo ma doole rey ma waaye je me te loolu rek moo fi des ak Macky Sall bu dee nag Barthélemy day wuy ji maa ngi wax toute la jeunesse sénégalaise lundi à la première heure ñëpp dañu daje gunge ko ba tribunal bu fa kenn xaj parce que il est le candidat de Askan Wi il est incha allah le futur maire de Dakar te duñu nangul lenn lu ko gàllankoor kon sama wax du gudd j'appelle toute la jeunesse sénégalaise tous les sénégalais épris de justice ñu jóg def face à ces forfaitures là élection dañu war a bàyyi ñi war a compétir compétir le peuple tànn fenn foo xañ ci loo xam ne tegul ci yoon nga xañ xañe fa ab liste élection foofu amu fa da ngaa créer les conditions du victoire sans adversité te nag fu mu ko def dinañ jël tout suñuy matuwaay yépp ba foofu élection bu mu fa am lépp dinañ ko assumer te man maa ko wax fii donc na ñëpp jël seen responsabilité parce que ces forfaitures avec la complicité de l'administration avec la complicité à venir de la justice sénégalaise te lu mun ci am le commandement des forces de l'ordre ànd ak ñoom di leen défendre di exposer les leurs adversaires politiques loolu lenn moo ko mën a faj mooy que le peuple soit debout j'appelle le peuple à à être debout pour qu'on mette fin à ces forfaitures je vous remercie